Fatou Aïdara ñu koy wax Lady Paris. maa ngi koy nuyu di ah. maa ngi nuyu Lady Paris. nuyu ku la neex. ici <laughs> c'est moi qui la parole su la arrêté nga arrêté. et je veux que tu continues tu dois continuer. vas-y maa ngi nuyu Lady Paris. Lady Lady Paris. ñu koy nuyu baax di ko ziar. Ah. maa ngi ñëw ci moom. borom tefes ngor yëpp dañ koy nuyu du dëgg. ñoo ngi nuyu ñëpp <laughs> jërëjëf Pape Ousmane ah, ah am nañu mbégte bu baax ànd ak yow ci euh, plateau bi <laughs> dañ lay namm nag euh, wallahi saa yoo demee euh, ñun ni nga ñuy bàyyee xel ñun nu ko raw nañ lay bàyyee xel <laughs> parce que tout temps dañuy am envie di nekk ak yow sur le plateau ah, yaa fi suñu kilifa yaa ñuy góoral yow ak yeneen càmm ñi nga xam ne ñoom la ñuy nekkandool sur le plateau souvent olof danaan tubaab danaan honneur aux dames waaye ñun nag comme ay wolof lañu cër gi dañ koy jox góor ñi du dëgg ñooy suñuy kilifa ci plateau bi ñoom la ñuy bàyyi ñu nuyoo ba pare ngay soog a ñëw ci ñaar ñi ah. nga xaw ma fu ma jëm ak ñoom ah, lii mooy ah. éducation oh, voilà li nga def nii maam da koo xamoon démb ak barki démb ñun loolu lañ xam man honneur aux dames ak yooyu dañ ko bàyyi ak tubaab la transmission bi mhm. réussir nañ ko ci yow te wóor na ma seen wéjur lay doon ak seen waa kër waaw c'est ça la transmission ayca voilà voilà des exemples qu'il faut. jërëjëf qu'il en avant qu'il faut eh, en exemple jërëjëf bi ñu fàttalee démb ak barki démb mbaax amoon na ci dabay eh, eh, dara réerut jërëjëf émission bi commencé mu fàttalee ni réew mënta ñàkk kilifteef te lii nga wane nii dafa wane nii ku xam kilifa nga ku nangul kilifa nga te yaa koy fàttali. yéenay suñu kilifa de. àdduna du neex a neex a neex a neex a neex. ah ba ñu nekk seen kilifa. ajaa na bu koor jërëjëf nuyu xam ngeen ne alxames bu jot moom la ñuy àndal euh, ma da ngay nopp bëggoon ñu nuyoo ba pare kilifa yi du dëkk après ngeen di soog a wax. ayca Cheikh Ousmane ñu nuyu la. Mhm. Cheikh sa micro nga ko. Eh. waaw daf mel ni taaluma ko ah, maa ngi lay nuyu mami mhm. di nuyu Nabou mhm. di nuyu Soxna Ngone di nuyu sama soppe Pa man mhm. ak internetu sans limite yëpp muy sénégalais yi nekk ci réew mi comme ñi nekk ci diaspora bi di suivre chaque matinal ak ci café di ñaan yàlla waxtaan bi nekk njëriñ yaa ngi ñaara jërëjëf eh, Cheikh Ousmane am nañ mbégte bu baax ànd ak yow ci eh, waxtaan bi alors euh, mooy nuyu la grande dame la belle. <laughs> eh doy na doy na. mooy féddali loolu la olof di wax. di féddali hmm? sama cofeel ci moom respect bi ma am ci moom. comme là je ko seede ah. voilà. Euh, cofeel gi ma am ci moom. Ah, respect bi ma am ci moom. dama ko mën a ah? ma koy ma koy ma koy féddali bu baax a baax a baax. nga ànd ak nit moom yomb na. mais ànd ak nit ba pare fan ko moo moo gën a jafe. yàlla na yàlla gën a sàmm diggante bi waaye tey laa koy wax. Mhm. devant tout le monde. maa ngi feddaliwaat sama cofeel ci yow. la grande Adjaratou Mamy ah on t'aime on ñun on a envie de voir <laughs> cette mamie là. souriante. Hmm? belle pétillante pertinente. surtout pertinente yàlla na la yàlla sàmm sàmmal ñu la. bu baax a baax a baax. amiin yaa ngi lay eh, nuyu. di am mbégte ànd ak yow ci plateau. bonjour <laughs> Nabou bul def yi <laughs> <laughs> ma def nii toi tu me connais pas. tu connais trop bien ma <coughs> sensible du dugg bul yàq bul yàq mood bi dès le matin. <laughs> mon rayon de soleil bonjour. bonjour bonjour de te retrouver le matin. Uh-huh. waaw xale bi fi mën a damm élan yow. oui <laughs> ah, ma may ma ngoone ma wàcc ci péelu ñu. déedéet baax wuy ma wuy ma wuy ma mënoo fi nga baax na fi jóg sit waaw moom yow yow pour def Touré Touré yaa ngi waaw maa ngi ci def yàlla <laughs> na ne àdduna bi xam nañ ne man yaay sama càmmi. loolu moom du dañ loolu dëgg la. ñëpp ñëpp xam nañ ne yow sama sama sama zimoo nga sama xarit. loolu dëgg la. waaw ah, kay waxal ñu ñu bàyyi ma. Mhm. ah du dugg sa diggante ak say soppe de wóorut. baal ma maandu ci rek. alhamdulilah. <laughs> jikko boobu rek lañ niroowul ma moom maan. boobu moom baal ma saxal ma xam <laughs> loolu leer ma xaw ma moom la leerul. Gora Sarr moom daa maanu man maanuwu ma lii rek mooy suñu différence ma ñun <laughs> ñëpp côté bi kenn maanuwu xam ngeen tane bi ma dama ñàkk maanu maak yow sax surtout danoo ñàkk maanu yàlla na nu yàlla defal jàmm ah? amiin amiin danoo ñàkk maanu internautes yi bonjour ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ça fait plaisir de vous retrouver dans Café Actu et on espère que vous êtes bien réveillés ce matin Euh, mon rayon de soleil rebonjour à toi. Euh, sama beneen sunshine bi Ngone bonjour à toi Pape Ousmane Cissé. bonjour à toi. bonjour. yaa ngi woon ci Lady Paris. ñu koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. ki nga xam ne dafay def traitement de cheveux ba nga am cure chevelure bu baax. et puis nga am qualité cheveux bu bu baax aussi. te xam nga góor yi dañoo bëgg lu naturel. Mhm. góor ñi bëgguñu bëgguñu tissage. bu nu sañoon seen leen seen seen jabar yi dañuy def ay cheveux au te loolu balaa neex nga am karaw traité leel yeeg yeneen yi ci topp yëpp mhm. yi bu di wax ndànd fay-fay gi <laughs> ñu lijjanti ko ak pongu ndar yi sama yi sama genre nga xam ne ay pongu ndar la mu am man moom ah, mm-hmm. ah, la xam naa ko ci moom. <laughs> bi sampu rek <laughs> sampu rek man xanaa xamoo am na ba boo ñëwee ba foofu ngay jàddee nii. waaw ah, kay wax naa leen sax man man man man man kon saafara am na. déedéet pour nga wax pour nga wax léegi pare ne ko rek. man sama bopp tàntàntàn lay nudu Ndakaaru tàntàntàn. maanaam ay kii la def nii ay kabasu mel nii yaa ngi dégg moom à tout moment mën na nekk problème bu mu war a ñu koy encouragé bu baax di ko nuyu di ko ziar voilà di nuyu équipe technique bi et tous les Sénégalais ak fépp fu ñu mënti nekk mhm. eux ils savent que ñun les adore cette équipe de Café Actu ndax ñoo ñuy tous les matins partout dans le monde entier kon nag euh, mhm. sans pour autant ñu cité ñi bàyyi ñeneen ñi ci des nañu xam ne mhm. ñëpp ñuy seetaan mhm. ñi bind ak ñi bindul ñi commentaire ak ñi commentaire ul yëpp voilà ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wax ne am nañu mbég ci ànd ak yéen ci suba gi jërëjëf ma euh, euh, mami am nañu mbégte bu baax ànd ak yow ci plateau bi ndekete bi may wax ak yow naan la maa ngi feddali sama cofeel ci yow ñu ngi may envoyé message naan ma suñu nekk ca bëri nga ci nag bëri nga ci bëri naa ci ay morom waaye bu leen ko xëccoog man du dëgg man à tout moment mun naa laa pointé. waaw ñu ñun xam ñu da ngay xeex nag wax leen loolu. à tout problème day euh, am alors euh, moom ponché d'amour. yooyu sama ponché kii nag mënul ñàkk sama <laughs> dund de. <laughs> la belle ngoone. mën naa que mën naa ñibbi parce que lii mën ma ko yëndoo ci kër gi. <laughs> sa wàll. nag kañ xuloo à chacun son tour chez le coiffeur. ma kañ xuloo ba émission bi. kot la kot la kot la moo euh, yow moom wax dëgg yàlla bu ñu naan chouchou des Sénégalais yow yaay yow yaay chouchou wu Sénégalais yi. yow la ñuy ah, topp matin midi soir du dëkk. <laughs> man it yow laay topp. man mi yow laay topp. ma ponche d'amour. mais eh, yooyu nag bàyyi naa ndikkee ponche. <laughs> Nabou de kaay ma wax la bu lay xamal na la xawal jàmm de amul kum ci rus de. ah yow boo ko ñamoon doo ko bàyyi eh. rusul Pape Ousmane <laughs> Cissé rusul kenn ñoom dégguñu ma ne. Mm. yow mi boo ñamoon poñse doo ko bàyyi. Ah. Ah, poñse dafa neex di poñse neex na de ba amee. dara daaw dara daaw ko dara daaw. yow ñëpp ñëw c'est-à-dire que ñëpp bi la ñu <laughs> xam ne <laughs> yal na la yàlla musal yal la yàlla musal ci poñse. fii ngeen Nabou nuyu naa <laughs> maa ngi lay fay Ngoné Saliou waaw ñu naa la. ayca man mi dama bëgg a bàyyi tey xaw ma lu tax <laughs> tey loolu laa yëg ci sama yaram <laughs> dama bëgg a bàyyi. mbay dañ ci jàmm. ñu nekk seen kaas si poñse wala. Hmm? te en général nag poñse bu toll nii moo gën a neex. Euh, Cheikh Oumar ziar nañ la di la dalal jàmm. mami maa ngi leen di bu baax di la ziar. namoon nañ la. walaay maa la. ba yaa ngi ci jàmm sant alhamdulilah et toi. alhamdulilah maa ngi ci jàmm bu baax a baax. macha allah euh, juste wax na ne la peuple est fier de toi. Sénégalais yi kontaan nañ ci yow Sénégalais yi gën nañ la bëgg ni ko mami waxee cinq mhm. les gens sont très très très fiers de toi. Mhm. ñu jot ci ay message foog naa bu ñu ko doon lire tey émission bi du fi euh, du du jeex. Mhm. di la bu baax yal na yàlla jàppale. amiin suñu mami national ñun yow rek la ñuy topp li ko xale di waxee. man bi yéen rek laay topp. génn foofu génn naa ah, foofu waaw ah, ah, ñu génn foofu eh, di nuyu internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp hmm? mhm. di nuyu euh, waa diaspora <laughs> di nuyu sama nawle yooyu di nuyu Ami Aïdara maa ngi koy nuyu depuis Suisse <laughs> di nuyu Ami Aïdara depuis Côte d'Ivoire xam nga nag li ngay def rek ma jax seeg ñu dañuy foog ne damaa ndékki ñëw toog fii di reetaan alors que demeewul noonu <laughs> ma ne bàyyi ma liggéey ci jàmm d'accord kon yéen histoire poñse moom la. yàlla xam na ne même man je suis pas au courant. da ngaa demoon démb même man ah. yow seetluwoo dara yow mami. c'est quoi cette xulli ma fi eh yow seetloo saa boo demee boo ñëwee am la rëcc. mais mais man Pape yow Cheikh Ousmane man dem bi may dem tey moom man man de man damay damay dem rek. <laughs> tey moom loolu yàqal. waa léegi oui ma sa rab yee la yaa sama rab yi dama damay jéem de. waaw léegi avec l'autorisation de Nabou bu fekkee wax may na ma ko ma wax la ko. Mm, mm, mm. Ah. nga ni nuyoo nga pare ah. jërëjëf ajaratu am nañ mbégte bu baax daal di ànd ak yow ci plateau bi. comme loolu la may fàttali ca Pikine oh. comme genre yooyu la. maa ngi nuyu Cheikh bu baax a baax. xalaat leen lu ngeen mën nawle yi ñu ngi koy ziar bu baax bu baax a baax di ko jox wàccuwaay bu baax a baax di nuyu internet yi nga xam ne ñoo ah. ànd ak ñun ci suba léegi mu baax nag euh, di leen euh, jaajëfal bu baax a baax xam ngeen ni alxames bu jot a ànd ak Cheikh Ousmane Touré Papa Sane moom dina ñëw man Pape ay man man sama junni wala deux jours à l'autre ah, nu ngeen na du ma bàyyi chaque jour mooy turu turu Papa bi nga xam ne bu ko neexee si bu ko neexul bi pourtant dinañ xam ne amu na mënuma bu su ma ko diggee. da koy woo. waaw ah. appel. en direct waaw ah, déet en attendant laa wax de. en attendant yooyu yëpp dama ne. poche bi lan la jërëjëf euh, ah, euh, ci euh, waxtaan nga lekk poche. waaw moo tax mu bëgg a xam histoire waaw poche dama koy lekk. d'accord. poñse. dinañ ak ci waxtaan bi ci jàll Ismaïla dafa am. mami poñse dute am. c'est le kër ponce ponce ponce c'est bon ayca euh, ànd ak ci euh, waxtaan bi monsieur Diallo Ismaïla député à l'Assemblée nationale bokk ci euh, groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi moom la ñuy àndal il va nous rejoindre sur le plateau ci deuxième partie bi incha allah xam nga ne café actu ni lay tëddee la revue des titres la ñuy doxee doxtal ci cas sur cas daal di jeexalee actu commenté tout de suite dañuy dem revenir sur le plateau daal di ànd ak yéen ci li ko ci tey ànd ceeg ajaratu Mami Sam. waaw. Buenas